mais crédible amul bi ci gën a té le le meilleur profil pour un député de Kaolack c'est docteur Macoumba euh, la pertinence les ressources nécessaires c'est un grand intellectuel un homme de développement a œuvré vingt cinq pour la commune pour la, pour la commune de Kaolack mais quelqu'un aussi qui a une belle naissance kooku lan lañ lan lañ lan lan lan lan lan lan la ñuy daw bay daanu Kaolack lu ñuy daw lu ñuy daw bay daanu na Kaolack mobilisé wu ñu wut député boo xam ni Kaolack en tout cas danañ xam ni kii kat am na xam-xam bi mun naa plaider Kaolack mun naa waxal Kaolack mun na koo représenter ëllëg si bi tamit ñu xayma liggéeyam ëllëg si bi képp koo xam na ngay sàmm dara Kaolack te waxoon moom nga xam ni doo dem fenn loolu mooy dëgg mooy fulla mooy fayda. te nag danaa ci battre campagne danaa ci jógee danaa ci liggéey danaa ci ànd ak askan bi danaa ci wàcc terrain bi danaa dem ci département bi fépp foo war a xam danaa ko dem parce que man Kaolack laa bëgg ñu wan li fi def ba pare bien vrai ku nekk xam ne sama communauté yaa nga Dakar sama communauté yaa nga Touba ñi nga Ndula ñi nga Nioro ñi nga fépp mais man samay concentré samay ressources fii ci Kaolack lijjantiwuma suba ña ca nekk man rek loolu ko ma juf moo ma intéressé moo lay campagne je vous remercie. ni ñi ngi euh, wala doo juum wala doo matal waaye présidente yi defe naa journaliste yi may wax suma digganteeg moom mënu ma leen lim ku ci nekk donc ñoom ñëpp damaa ci seppi ay présidente ne leen nañu ñëw fekkee sama déclaration de presse donc maa ngi di gërëm ci seen déplacement ndax ku nekk ñi ma fi oo ñëpp ku nekk xam na ne biig ci guddi laa la oo biig ci guddi laa la oo te defe naa ni euh, wax lu dul dëgg xaju fi ñi ñëw fii tamit xam nañ ni sacrifice dëgg la ñëwee parce que xaw ma woon nii ci sama gis-gis nii on doit démarrer la campagne euh, aujourd'hui même à minuit ma ne il faut que je fasse la déclaration avant avant avant minuit c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué cette euh, déclaration j'ai convoqué la presse pour faire une déclaration euh, du loolu weesoo ma gërëm nag samay sama parti parti bi du ma ko waxee nag dafa am ay kàngam ñoo xam ne ñoo ko ŋànk depuis fukki bi ci liggéey euh, xaaruñ dara ci Aprodel xaaruñ ci dërëm xaaruñ ci fifteen commencé ko ci coordinateur Pape Samba Mbessane nekk professeur de lettres modernes nekk fii ci département de Nioro dafa liggéey depuis fukki at muy jaabante Nioro ak Kaolack di ñëw di doxal parti bi di liggéey di ko di di di di di ma jàppale di ma secondé daanaka sax mën naa wax nii politique doxatul suñu diggante suma membre famille la ma rakk la ndey ak baay lañu bokk lu ma metti metti na ko lu ma naqari naqari na ko fu ma xamee ni wéet naa sax day bàyyi këram tëj këram ñëw toog sama kër. li ci gën a yéeme anecdote bi laa dee joxe moom mooy nii ci Covid bi nga xam ni kenn ñemewul dem ci kër nit te xam na ni mënul déplacé wu guddi gi bëccëg day ñëw yendu ak man sama kër ba heure añ passé quatorze heures balaa euh, couvre-feu di commencé mu ñibbi këram loolu nit ku bëggul nit nit ko jàppeewul nit ndey bokk ak moom ndey ak bàyyi def ko ci sa xol yéene ko lépp mënoo ko donc du ma fii danaa ko du ma jëlee nuyoo teg ko ci loxoom mbaaye danaa leeral encore une fois de plus parce que nag dañaan jataay bu nekk tàggoo la te jot amul te jataay yi bëriwul du jataay teewee dangay ngay parafitoo ci jataay yi pour wax nit ñi diggante yi ak suñu diggante ak nit ñi c'est important parce que ay nit duñ nekk rek lu ñu la defar rek nga yori lekk comme ni ko sëñ Mansour doon waxee ne dama ko daa ko yayoo as day delloo teranga kilifa gi wax na ko léegi ay as jor day xam teraanga suñ ko defal mu di ko wax di ko wax di wéetee di ñaan loolu mooy as gor donc Pape Samba ñun Aprodel ñoom ñëpp defe naa mu ni ma tàccoo léegi war ngeen ko mën a tàccoo noonu ndax liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon guddeeg bëccëg te xam ngeen ni borom kër la te ñooro lay jógee ñëw ci réunion yi mu jeex guddi gi mu dugaat wala 4 heures du matin mu delluwaat ñooro parce que c'est un professeur c'est loolu la ñuy wax ci madame Cissé mii tax sama wet Banjo Cissokho depuis fukki at soxlawul dara bëggul dara utul dara laajuñu dara exigé wuñu dara ñu jox ko jigéen ñi wu téye leen ba pare uuf leen doon jàmbaar lool waaye nag wax ji bëriwul ndax jëf la gën a mëne mu ngi nii suñu wet guddeeg bëccëg ci loo nekk mu nekk ci ñun suñu bopp sax du ñu manqué dépense moom la ñu woo <laughs> non dañ leen wax dëgg parce que ñun dañ leen wax ni ñu àndee nan la. waaw ah, wallaay Moussa Fall dafa yore ay milliards rek wala yore ay million jiite parti. ay fonctionnaire lañ ay doomu aadama lañ ay ànd ànd gor lañ ànd ànd nawle lañ ànd lu ma mënul ñoom ñu mën ko lépp lu xam xamul mënuñ muy ko Pape Samba mën ko wala lu ma mënul Maram Cissé mën ko wala suñ rakk ji nga xam ne moo nekk suñ ginnaaw muy atumaan amul soxla dañ ko koy oo ko ko moom loolu mooy ànd as gor donc ñuy wax rek ni nii lañ àndee ak ñun nii la àndee ak responsable yi la àndee ak aatu mi nga xam ne moo jiite gone yi moom it guddeeg bëccëg subaa ngoon guddeeg bëccëg doo ko fëggee lu mu sori sori danaan cëpp ñëw jóg ànd ak yow dox li ngay dox madame Cissé mii 4 heures du matin lañ koy wàcce këram donc te ay ñi ñi ci des nag ay jigéen lañ jigéen ñi ku nekk xam ne heure bi ñu leen di libéré ñuy ñibbi seen kër yi mu jigéen ñooy taal oto yóbbu leen seen buntu kër yi fëgg seen jëkkër ñu ubbi ñu dugal leen ñu te loolu depuis fukki at la donc kon ñun ànd bi ñu ànd du ma waxee ñu ne Moussa Fall militant am kenn mënu koo jël c'est parce que man ànduma ak militant ci wàllu meeting ak organisation dañoo ànd boole suñu ay njaboot boole suñu ay suñu ay dënn boole suñu ay xol boole suñu am am boole suñu suñu suñu suñu mën-mën lépp loo xam ne ñoo ko am ñoo ko bokk di déggante guddeeg bëccëg subaa ngoon guddeeg bëccëg am nañu jóge Koutal ñu ngi fii ci ginnaaw Ami Diouf du toog ñaari ñaari semaines yoo xam ne owu ma Ndakaaru seet ma ne ma président nan nga def jigéen la kër la yor est-ce que crédit bi muy jën di ma oo xajul ci moom mais mi ngi nii ci ginnaaw ñoo na fi depuis 4 heures te man maa doon sélectionné rek ay groupement yu ñëw teew fii xam ngeen ni 187 groupement xajul ci kër moo tax nag dañoo bëgg dañoo bëgg du ñu paree lii nag sumb nag rencontre bu mag boo xam ni dañuy wane ni remobilisation la ñu def wan en direction de ki nga xam ne ci lañu jëm léegi mooy waxtaan bi dañ ko tëral pour wane rek ni Aprodel déclaration de presse la woote oo ay responsable pour ñëw fekkee si ko mais nag ñi ngi jëm ci mobilisation bu mag a mag a mag a mag fii ci Kaolack gars yi xam nañ ñu xàmmee nañ ñu xam nañ luñ mën xam nañ luñ mënul te yaakaar naa du ngeen waxee ni ñi ngi ñëw ci terrain bi wala ngi ñëw stade rek ñi dañ ko gëm ndax nag defe naa ni euh, miin nañ ko te ñeme nañ ko du loolu weesoo ñu wax ni ci cadre élection yi nga xam ni ci lañ jëm si tey Aprodel depuis élection législative élection présidentielle ku nekk xam ne ni dañoo toog noppi waxuñu ñu ngi toog jàpp suñu ñàmbur nit ñi ku nekk onoñu fan nga féete fan nga jëm looy def ndax dangay ngay yokk yox ko perte ngeen pouvoir bi da ngay dellu dangay ngay dellu dem ci ñi gagné pouvoir bi ma ne leen en tout cas de ku ma xamul ñàkk maa xam xam sama jaar-jaar xam fi ma jógee xam fi ma cosaanoo mooy xam sama cursus kooku moom may ndax Moussa Fall da ñun nu sommes formés dans la gauche maanaam parti yu ñuy wax parti de gauche bi nga xam ni c'est des partis yoo xam ni nit ñi dañ leen di formaté ci wàllu conviction man politique bu doon xaalis laa ci ut rek bàyyi naa ko ñun politique conviction lañ ko defee gëm-gëm ak patriotisme bëgg sa réew. ñi ma ko wax ñu ci bëri ma ne leen man du ma mën a transhumer du ma mën a dem ci parce que en fait damaa bëgg man nit ñi di assumer ce qu'on appelle les choix politiques nit ko defee choix da ko war a assumer nit ki war nga mën a nekk ci benn côté muy opposition bi wala muy pouvoir bi nga liggéeyal ci sa réew lan moo tax nit ki du xeexee xeex ba jël nguur mi ñëpp màbb jëm jëm ca moom nit ñi dañoo war a assumer wu seen passé assumer seen parti assumer seen seen seen seen li ñuy wax seen euh, li nga xam ni moom lañ leen dénk muy seen gestion ba pare mën a rendre compte ëllëg c'est ça la réalité du pouvoir pourquoi les gens ne veulent pas rendre compte quand on gère un pouvoir c'est pour rendre compte à la fin de la mission moo tax ma ni je condamne man fii solennellement et devant l'assistance la transhumance sur toutes ses formes que chacun reste chez soi ku nekk na nga toog fa nga toog liggéey li nga war a liggéey bu dee ci opposition bi nga liggéey ko ci assumé assumé ko mais bu dee ci pouvoir bi nga nekk nga liggéey ci pouvoir bi assumé ko Ousmane Sonko ak ak Diomaye Diakhar Faye dañ leen dénk réew pour ñu liggéey def ay fa parce que ñoom ils n'ont plus la le ministère de la parole ñoom il doit poser des actes des actions travailler concrètement parce que ils ont mis à leur disposition des moyens de travail moyens les relations internationales la diplomatie tous les secteurs dañ leen koo dénk ñooñu liggéey moo leen war mais opposition bi doit s'opposer parce que c'est ça l'équilibre démocratique la démocratie c'est des équilibres on parle des jeux démocratiques il faut qu'il y ait une opposition et un pouvoir donc de ce fait parenthèse bi mu ubbi woon la mais li am solo ma ñëw moom mooy nii ku ci nekk bi ma wooye dama leen ne man je reste su ma toog ci opposition bi laa gën a gis sama bopp mais une opposition objective et réaliste man je ne suis may wax naan c'est ce qui tire tout ce qui bouge réew mi moo ñu ñor réew mi moo ñu intéressé mais ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk duñ defee lu baax tàccul mais duñ defee safaan ne leen fi ngeen jaar baaxul loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg moo tax man ni ci biir plateforme yi nga xam ne ñoom dañ ma ci invité muy les coalitions ak coalition bi nga xam ne moom la taxawal intercoalition bi wane nañ ma waxtaan nañoo ak man suba ngoon guddeeg bëccëg depuis ñaari weer ñi nga wax ak man ils n'ont pas ñi ci des mooy waa amadu Ba oo nañ ñu consulté ñu wax na ñoo ñoom ci rajo laay waxee ak kilifa yi nga xam ne ñoo ko jiite dama leen wax ne leen mënuma ànd ak yéen li tax tamit ay raisons yoo xam ne ñoom xam nañ ko parce que waxtaanee naa ko fii ci njëlbeen ndax 2024 bi nga xamee damaa bëggoon gis Amadou Ba jàppale ko ànd ak moom dañ maa tëjaloon buntu ñu soxla ma tey ma ne leen maa bañ ñu del si fii ci biir Sine Saloum am na ay coalition yu bari yoo xam ne juddu na fi ay nit ñoo ko jiite mais coalition yooyu damaa jàpp rek ni man li ma jaar ci politique ak jaar-jaar yi ma ci am gëmatuma war naa mën a toog ay nit defalee seen liste Ndakaaru dajale di dajale ay voix di wër Kaolack ba daje Kaolack ne leen dajale ma damay voix yoo xam ne dama yóbbu assemblée nationale ma ànd ak yéen di yagar yagar di topp ci loolu ñàkk fayda weesu ko nit ñi dañuy def collecte de voix dans les régions c'est des listes farfelues des listes yoo xam ni à bon sens euh, dañu am lu ñu dañu am lu ñuy dox wala lu ñuy lijjanti wala lu ñuy lu ñu lu ñu bëgg mais ce n'est pas en réalité. de représenter dignement Kaolack c'est pas des listes c'est pas des listes yoo xam ni qui prend en préoccupation les problèmes de Kaolack liste yooyu du ma ko voté bii loolu weesoo ci biir ces propositions ma analyser si une candidature boo xam ni jàpp naa ni c'est une candidature juste c'est une candidature boo xam ni c'est compréhensible c'est une candidature boo xam ni c'est réaliste c'est une candidature boo xam ni day recouper les préoccupations de Kaolack et de Sidi de la du département de Kaolack am liste boo xam ni tey mun nañu wax ni tey Kaolack ki nga xam ne moo ko jiite ci département bi depuis vingt cinq ans depuis vingt cinq ans laa wax il œuvre pour le développement économique et social du département de Kaolack depuis vingt cinq ans quelqu'un qui n'a ménagé aucun effort aucun effort pour le développement de ce, de, de, du département de Kaolack très calme très sérieux rigoureux travailleur intelligent patriote celui-là il s'appelle docteur Macoumba Diouf il s'appelle docteur Macoumba Diouf je l'ai dit lors conférence de presse fii ma toog nii waxoon naa ni mon choix mon combat ce serait plus un combat national pour ne pas dire nationaliste mais un combat de la raison pas de la raison mais de la raison quand je dis la raison je pense lu xel mun a nangu la le candidat bi nga xam tey Kaolack amul dëkk commune boo xam ni tuuru fa ñaqam ci ñaar fukki at yi génn candidat bi nga xam ni école yi stade yi terrain de football yi nawetaan yi marché yi équipement yi partenaires yi hôpitaux yi école santé secteur yëpp docteur Macoumba Diouf wër na ko jël alalam tuur ca jël na xam def muy un agent de développement un nom qui n'est pas un homme politique tout court mais un homme un ingénieur du développement c'est cette personne c'est ce cadre émérite de Kaolack c'est ce fils de Kaolack que je voudrais accompagner pour ces élections départementales nationales législatives départementales de Kaolack il est la tête de liste d'une coalition la coalition ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est la personne de docteur Macoumba Diouf il faut qu'on évalue le travail de 25 ans de docteur Macoumba Diouf dans le département de Kaolack il faut Kaolack waay delloo ko njukkal il faut que mu ñu def ko lu ñu wax pour rendre ko un hommage pour le plébisciter pour faire de lui un champion du département de Kaolack celui-là il le mérite il le mérite quand je passe à Dëkk Macoumba les gens me diront mais lan moo tax nga gis liste nationale yëpp yu Amadou Ba jiite Macky Sall jiite ko nga ànd ak mais Dëkk Macoumba ju ne mooy doomu dëkk bi mooy doomu Kaolack docteur Macoumba Diouf moo jàngee Kaolack moo dëkk Kaolack moom la këram nekk Kaolack mooy maire Latmingué moom moo amal askan bi njëriñ te ñu moom la ñuy gis du Kaolack sonne moom lay gis du département bi sonne moom lay gis du nawet amee moom lay gis du engrais jotee moom la ñu gis du jibi jotee moom la gis waaye nag du Covid amee docteur Macoumba Diouf la ñu gis ci département bi ma ne man je préfère accompagner un liste départementale que d'accompagner ces listes nationales yi nga kii n'ont aucun et que Sénégal fi ñu toll ñoo ko fa yóbbu ñoom ma duma ànd ci liste yooyu c'est la raison pour laquelle après concertation avec nos camarades après concertation avec l'ensemble des responsables qui composent notre parti tous les secteurs la jeunesse la présence des femmes les personnes ressources nous nous sommes convenus dans un commun accord de soutenir la liste que dirige docteur Macoumba Diouf dans le département de Kaolack Vous le savez, nous avons de très belles relations, des relations empreintes d'amitié, de sincérité, de loyauté. Cet homme qui a tout donné à son département, un cadre émérite, l'un des meilleurs cadres, le meilleur profil de ce département en matière agricole. Ces travaux sont là, sont visibles aujourd'hui. Avant-hier, il a exposé un plan départemental pour le commune. quel cadre quelle compétence quelle générosité quel engagement quel patriotisme nous demandons solennellement aux Kaolackois du département et de la région de tout Sénégal tout le Sénégal particulièrement la commune de Kaolack toutes nos instances tous les secteurs de se mobiliser comme un seul homme pour aller voter massivement la liste que dirige docteur Macoumba Diop dans le département de Kaolack nous allons en même temps que lui battre campagne à côté de lui nous allons sillonner encore le département nous allons nous dans la commune pour lui apporter notre soutien un soutien réaliste un soutien kenn du ma ca fekk ne ma a ah, lu la indi ci docteur Macoumba Diouf loo ko jàppale parce que nous avons les mêmes convictions Nous avons les mêmes préoccupations qui est le développement économique et social de notre territoire. Nous avons les mêmes préoccupations parce que Makumba bëggul dara soxlawul dara am na yar am na teggin te nit ñi dañ ko yàgg dafa yàgg jëriñ nit ñi te nit ñi jëriñaguñ ko lii nag c'est un test grandeur grandeur nature comme ni ñu ko tubaab di waxee pour tester l'effet l'impact de son travail pendant vingt cinq ans c'est une candidature de test si les Calocois leur accordent, lui accordent son, les, euh, les, les, les suffrages euh, nécessaires pour passer au premier tour, pour passer au cap de député du Sénégal, tant mieux. Et nous allons continuer le combat. Et nous allons continuer le combat parce que notre alliance est une alliance stratégique. C'est une alliance stratégique que nous voulons mettre en place pour mettre en œuvre, mettre en valeur les fils de la région de Kaolack. C'est ça mon combat maintenant. Ce n'est plus de partis politiques, de combats d'alliances et de coalitions. C'est des combats objectifs, de combats objectif excusez-moi, de mettre en œuvre, mettre en valeur et mettre en exempt ce que nous avons comme ressources humaines à Kaolack et Dr Ngounga fait partie de ces, ressources humaines. C'est ce que la déclaration que je voudrais faire. Je vous remercie la, presse, je remercie l'ensemble des personnes, des invités que je venant du département que la commune à suivre cette déclaration de presse. à l'honneur de la coalition euh, qui s'appelle Dr Macoumba Diop dans le département de Kaolack je vous remercie. transhumance daal man fan yëpp bi ma gisee réseaux sociaux yi sunu ay mbokk sunu ay xarit sunu ay am di jàmm ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo nekkoon fii ci ci l'alliance pour la république. bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi yàlla defee ñoom ñu jóge fi te nguur yàlla moo koy joxe moo koy xaje ñu ne fi ñukk parti bi ñukk coalition bi déedeelu mel ni ku bokkatul ci dara xëy suba rek dem ànd ak Ousmane Sonko mais loolu du yëfu gor du yëfu gor gor nekkul dañ koy wax rek mais dañ koy jëf c'est des actes à poser gor du li doo xam ni c'est des théories c'est des discours mais c'est des comportements il faut avoir ñu am comportement yu digne il faut que ñu xam ni opposition bi dafa am liggéey y a un travail d'opposant le travail de collecte d'information le travail de critique de l'autocritique ça c'est la ça ça ça c'est comme ça. je pense que ñun réew mi war nañoo xalaat ci façon boobu war nañoo xalaat ñu xam étiqueté nit ñi am na ñu jóge ñoo xam ni. tey tey tey Sénégal waratuñ leen fal waratuñ leen jox ndoom tànk waruñoo jiiteeti dara parce que seen jikko rafetul mais jikko mooy liggéey jikko jikko amul jikko ju rafet mais waroo continuer di jiite ay nit doo jiite parti am parti di ko doxal c'est parce que tu as des valeurs à incarner ñu ciy roy parce que parti yi doo seetee dañuy forme ay nit c'est la mission la mission des partis politiques de de former des citoyens c'est la première mission principale mais si les partis politiques continuent de faire ce qu'ils veulent les dirigeants de parti politique yi ku ci nekk tey du la neex lu la neex nga def ko doo nekk ci benn parti nekk jiite ko ba mu neex la rek nga nekk foo ñukk gis kenn ko gañe nga dem ànd ak moom war ginnaaw ñi ensuite bokk ci coalition nit ñëpp toog yaakaar la nga xëy suba teel bañ bañ nomé la dugale ci benn poste bu euh, rang bu am solo nga xëy suba teel trahir ñooñu mais loolu ña nga jëm sax war nañoo tiit ñoom Ousmane Sonko war naa tiit ci ñi jóge ci ñee ñëw ci moom ndax nag sab doom doo fa gisee sa sa tubay duñ ko xamoon ni ñu ko olof jaay di waxee ci sa ci sa sa xarit war ngaa def ngaa ragal sa noon sa ragal sa xarit boobu mais ñi nekk ñi nekk tey ñi nekk tey man man man man je suis choqué ah je suis choqué te nag dàpp naa ni Pastef ak seen programme seen projet bokkul woon ci li wax sénégalais yi dañoo waxoon sénégalais yi carrément ni ni transhumance danañ ko xeex sous toutes les formes. mais pourquoi ñoom ñuy nangu di ubbi seen parti di dugal ay ñoo xam ne boo am nañ suffisamment de cadre ils ont suffisamment de ressources humaines pourquoi ne pas utiliser ressources humaines pour mën a conduire ce pays mais loolu mooy dëgg il faut que ñu bàyyi transhumance yi arrêté ko ku nekk toog fa nga toog képp ko xam ne nga géré woon ñu xaar ba nga set wecc doo setu doo setee ba set wecc ñu xam ne yow mi kat ak réew mi kat yore desaloo yoreloo ko dara bu la neexee nag bu la neexee sax xëy na doo toogee ba yenn ñoo nga ne waa ñooñu soxla la nga ne ah man laa am naa intégrité bi war am naa moral bi war am na jub njub gi wër gi war ñooñu soxla na la ah dañu laa soxla pour nga ñëw liggéeyal ñu ndax exemple nga nag koo xam ne rayukaay nga kooku d'accord naa ko mais sa waay salaamaaleykum salaam nga takk seen digg nga takk seen digg jàll ci benn wàll ga dafa gaaw juróom benn weer juróom benn weer man je considère li may considéré comme loolu trahison la tudd amul leneen beneen beneen tur. crime crime te trahison la tudd amul beneen tur. et que nit tey muy pouvoir bi muy opposition bi war na ñëw liggéey nag vers l'uniformisation d'une loi anti-transhumant dañ cee war a liggéey parce que ni mu képp koo xam ne da ngaa transhumé ñàkk sa force doo mënatee nekk député wala doo nekk député da ngay sa poste sa responsabilité mais dañ ko war a def sur le sens politique. képp ku quitté benn parti jóge fa parti bi nekk au pouvoir nga fekk si ko doo fa demee yoon dal ci sa kaw te du ñu la falati ci dara loolu moo war a am donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni daal ñun suñu parti Aprodel ak ñi ñu àndal àndal même le fait d'abandonner son parti pour aller se retrouver dans un autre parti pour se réfugier pour ne pour ne pas Euh, contrôler ou bien bi euh, euh, votre gestion pendant 12 ans mais ça c'est un crime parce que ces gens-là la plupart d'entre eux ont commis des crimes financiers dans dans leur ministère c'est pourquoi la politique et que les gens le pouvoir qui aujourd'hui qui de gouverner et que l'opposition s'oppose C'est ça, c'est ça ce qu'on appelle l'équilibre politique, l'équilibre démocratique. Et je vous remercie. Je suis choqué. Je suis choqué quand je vois des cadres qui ont occupé des postes hautement stratégiques dans ces pays, qui ont occupé des responsabilités pendant des années dans ces pays, qui ont eu à défendre des positions ici pendant des années qui prennent la responsabilité, la douce responsabilité de quitter la, leur position, c'est-à-dire leur statut d'opposition pour aller rejoindre le, le pouvoir. Ça, en tout cas, moi je le considère comme de la trahison. Il faut que la politique soit revue dans sa forme de la faire, pour la faire. il faut qu'on revienne à l'éthique et à la morale. Si on écarte dans la politique ce qu'on appelle l'éthique et la morale, je crois qu'on n'aura plus besoin de faire de la politique. La transhumance est, une, est cancer dans le jeu politique. C'est horrible. Comment quelqu'un, pendant des années, tu occupes des postes stratégiques, tu oses quitter ces postes pour aller rejoindre ces gens qui viennent d'installer. Pourquoi Au nom de quoi Pour avoir des prébandes, pour avoir des, des, des, postes de responsabilité, pour avoir des postes, de ministère, des postes ministériels. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, personnellement, je suis très, très, très, très choqué quand je vois cette... Euh, euh, euh, depuis ces quelques jours, bande de personnes qui quittent l'APR, qui ont dirigé ce pays pendant 60, euh, euh, ans pour aller rejoindre la, le, nouveau pouvoir. C'est écœurant. Il faut que les gens soient gardés, ont gardé. Et qu'on revienne à l'orthodoxie politique. Mais ça, c'est pas on ne peut pas former même les jeunes qui viennent après nous. Mais qu'est-ce qu'on va leur apprendre en termes d'éthique de morale politique Voilà, Président, vous avez été un des pionniers qui ont participé au renforcement et aux acquis démocratiques au Sénégal. On vous connaissait depuis la LDMPT. Aujourd'hui,